إلا الله لا إله إلا الله la la asalaamaaleykum mbokk internet ñi nga xam ne ñuy suivre Sunugal 24 nan ñuy demee saa su ne ñàkk chance Sunugal 24 aayu aay na trop ñi nga xamante ne tey ñu ngi fii Kaolack ñu ngi toog ak ki nga xamante ne mooy taaw Baba Lamine di surtout Baye ñu ñuy waxtaan ak moom tey tuuti mbirum gàmm gi ñu ngi déglu tuuti ay kàddoom xam naa ne lépp li nga xamante ne tey soxla ngeen ko si gàmm gi dem leen tapé seen chaîne bi nga xamante ne mooy Sunugal 24 incha allah rabbi di ngeen am lépp salaamaaleykum kilifa gi maa ngi lay nuyu salaam wa rahmatullah marhaban bikum incha allah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah Eh, allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhaanallahi alazim wa bihamdihi bukratan wa asila ñu ngi sant yàlla di wax hani an li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun bada linnaazirina jamaaluhu hilaalu rabiin fiihi jaa muhammadun fa tamma lana albushra wa amma nawaaluhu ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ndokkeel mboolem àddina ci teru teeg weeru yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne lépp lu yàlla sàkk rek moom moo tax mu sàkk ko di sant yàlla bu baax bi ñu yàlla maye beneen yoon ñi teewati ci loolu beneen yoon ñi nekkati ci liggéey boo xam ne mag ñu baax yi ñoo ko tabaxoon ci réew mi mag ñu baax ñi ñoo ñu ko fi tegaloon kon dëgg-dëgg yàlla ñu leen yàlla fayal yàlla yàlla taas ñu ci seen barke di ñaan yàlla Euh, gàmmu gi nga xam ne ñu ngi ci nekk euh, yal na yàlla defal ñu fajug aajo yal na yàlla def képp ku fi ñëw képp ku dem ci màggal gàmmu yàlla defal la lépp li nga soxla yàlla mun na ko yal na yàlla def loolu ñu ngi fii ci Medina Baye délégation ñu ngi jógee fu nekk ci àddina di ñëw ndax ndaxte euh, lan moo leen indi li leen indi mooy ñëw jokk ci yoonu yàlla ñëw jokk ci yoon boo xam ne yoonu siraatal mustaqim boo xam ne démb la woon tey la waaye ëllëg la ndaxte Maulana Cheikh Ibrahim mooy kooku nga xam ne mission mooy àddina euh, bi yëpp mu ommat leen jëme leen ci yàlla ñi nga gis fii ñi ñëw yëpp am na loo xam ne euh, mos nañ ko am na loo xam ne dund nañ ko am na loo xam ne euh, dëgg-dëgg moom moo tax fépp fu ñu ootee rek da gis nationalité yëpp ñëw dajee Afrique Amérique mën nga wax ne Euh, continent yëpp da gis seen représentation loolu ni ko wane nag mooy dimension nit ki li ko wane mooy dimension woote bi li ko wane mooy dimension Euh, jëm ci yàlla bi dana daj mboolem àddina ndaxte Mawlana Cheikh Ibrahim li ko tax a jug mooy wal ummatu qasdi fihimu an asuuqahum ila hadrati albarri rahimi ilahina te foofu nag buñ fa mënee dem yonent bi mooy ki nga xam ne moom mooy suñ wéeruwaay yonent bi mooy xam ne moo nekk ci suñ kanam moom la ñuy roy yonent bi mooy ki nga xam ne moo ñuy jàngal jàngal yu mag yi yonent bi mooy ki nga xam ne suñ ko toppee lépp li nga xam ne dañ koy soxla yàlla daf ñu koy defal ndaxte moom yàlla tuddee boppam ba pare moom la ci boppam yàlla tuddee boppam ba pare moom la ci teg te ñu ngi wax ne yàlla sax moo ko ñëkk a màggal ndaxte mi ngi wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi kon yàlla ak malaaka yi ak euh, euh, malaaka yi ñoo njëkk a julli ci moom ba pare ñuy oote ci pour ñu julli ci moom kon defuñu rekk lu dul roy loo xam ne borom bi moo ko santaane yàlla na yàlla faj mbooleem ajo yàlla nañu yàlla defal lépp li nga xam ne soxla nañ ko képp ku ñëw ni nga ñëwee ak ni ngay delloo yàlla na nga dem ci jàmm yàlla na nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm te ñaan tamit yàlla defal ñu jàmm ci Sénégal defal ñu jàmm ci euh, Gambia defal ñu jàmm ci mbooleem Afrique defal ñu jàmm ci mbooleem àdduna ndaxte àdduna bi yëpp ñoo ngi. Euh, taataan lu jugee fii àddina bi yëpp ñoo xaar sàkku ñaan lu jugee fii àddina bi yëpp ñu ñu tàllal loxo kon yàlla na yàlla def euh, jàmm ci mboolem àddina fa faj mboolem aajo di profiter occasion di ziyaara xalifa di ziyaara euh, cheikh Mouhamed xalifa cheikh na Ahmed Tidiane Ibrahim di ziyaara cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim di ziyaara cheikh Mouhamed El Amin Ibrahim di ziyaara di ziyaara di ziyaara buñ ko toppee ñëpp buñ ko toppee ñëpp la ñuy ziyaara kaw ba ci suuf di imam di ziyaara. mbooleem waa Medina di ziyaara asamaanu Medina suufu Medina yal na yàlla faj mbooleem ajo yal na yàlla faj mbooleem soxla te leen ñaanal yéen itam fi ngeen xam ne yéen a nga fa bëgg a àgg leen fa yàlla àggale ndaxte yéen a ngi ci liggéey boo xam ne liggéeyu média la média mooy tasaare ci biir àddina kon yàlla na yàlla sàmm ba ngeen def ko nam gën a rafetee jotal nam gën a matee yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam beneen yoon ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di ndokkeel di leen tatagal fii ci Medina di ñaan yàlla ñi ngeen ñëwee ni ngeen di delloo yàlla faj seen mboolem aajo innahu ala zalika qadirun wa bil ijabati jadir assalaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf noonu lay demee saa su ne waxtaan am na solo lool lool lool yéen nga gis ne fii lay demee yi nga xamante ne mooy Medina Baye ñëw fii tey ak nga xamante ne mooy taaw Baba Lamine moo yëkkati kàddu yi léegi léegi jëmale ko ci nga xamante ne mooy mbooloo mi nga xamante ne ñu ngi ñëw fii tey képp lu fi waaye ñëw boo fi ñaani sa ajo yàlla sa ajo faju ñu ngi ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wér-gu-yaram bu baax a baax a baax ba ñu ñëw ay atti atti at di ko fekk fii muy di ñu ñaanal yàlla yokk ñu lool lool defal ñu tawfeex jërë ngeen jëf Yargın lan. Yargın lan. Gel. Eyvallah. أين الله لا إله إلا الله ay dala ay dala